ñu bare may message naan ma xanaa yëgoo Youssou Ndiaye mi ngi toj réew mi mi ngi toj dëkk bi nan nga ko gisee lan moo sa sama xalaat mooy soxor iñaan bon ñu bëri ci Sénégalais yi danoo soxor Youssou Ndiaye ni mu mel ci dëkk bi neexu leen gis naa commentaire ñii dof lan koo jàppee a ah, ñii jàppee ko ku wérul ah ñii jàppee ko ñi muy àndal ñoo ñàkk fayda ngay ñëw tamit ci ci ci public ba ñi ñi koy seetaan si tamit du duñu ay nit mais yéen yéen ay dof yi Youssou Ndiaye du dof de yéen yéenay dof yi parce que Youssou Ndiaye moo ñu am xaalisam moo ngi teral yaayam ñu ngi koy invité ci télé yi ah mi ngi taxaw ak Pape Diouf di taxaw ak ay Sidi Diop di taxaw ak ay Bastoun yéen kenn moo leen woo Pape Diouf lu mu ñàkk a mën a way bañ a mën a way bañ a mën a way bañ a mën a way donte bu fekkee faramarin bi nekk moo fi nekk Wally Seck la nit ñi jox bopp mais am na ñoo xam ne ñu ngi rêvé Pape Diouf woo leen seen kaw seen waxtaan ak ñoom amu leen ko mais loolu Youssou Ndiaye am na ko. dof ngeen ko jàppe mais dof yéen yéen ay dof yi yéen yéen ay dof yi yéen yéen a wérul Sénégal boo doful doo am dara dof rek moo ko yor dof yooyu dem ci palaato yi dof yi la ñuy invité dof yi la artistes yi bëgg dof yi la artistes yi di àndal yéen kenn mooy ànd ak yéen kan moo leen di woo ba bari ngeen soxor yéen a ngi jàng def def am ay diplôme a ah, jàng seen métier amu leen liggéey kenn mosu leen a woo ci plateau kenn mosu leen a jàppale mosu leen a teg Waly Ballago Seck bët mosu leen a teg Pape Diouf mosu leen a sii di Diop bés wala boog ñu néew la ñu néew la wala ñuy ànd ak yéen wala ñu leen di invité ci kaw seen ah wala ñu leen di may ay xaalis ji leen defal ay teranga Sénégal gi teg seen bët mais amoo leen loolu mais Youssou Ndiaye am na ko grâce à waa Médina artiste nit moo koy formel boppam mention spéciale waa Médina ah kontaan naa ci yéen